Oumar Diagne maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Comba. voilà Oumar Diagne nga nekk président bu SOS Littoral coordonnateur bu collectif euh, de Wakam Taxaw Thème nekk aussi co-coordonnateur des trois villages de Wakam Ngor et Yoff euh, déjà ma lay laaj si SOS euh, Littoral association bi lan moo ko taxoon jóg exactement. waaw association boobu si association des volontaires de l'environnement de juddoo. en 2001 dañu créer les volontaires de l'environnement en 2008 ñu nekk ci euh, benn plaidoyer sur les ressources naturelles de Wakam am imagination te intelligence su jël la problématique du littoral en contre parce que suñu dëkk yi Wakam Ngor Yoff ay dëkku tefes la dëkku tradition la dëkku coutume ñu ne donc comme littoral bi ñu ngi koy jël ñu xalaat rek ne nañ créer une association qui va s'occuper spécifiquement du littoral donc 2008 lañ ko fondé man Mansour Sora Waat ak Pierre Goudiaby Atepa association boobu nag aussi répertorié nañ ko dans le ministère de l'environnement aussi te jox na Sénégal raaya bu mag ci benn présentation scientifique bu mu def joxe ko AZETEX mu dem euh, Yeosu en Corée du Sud en 2012 devant 157 pays nous avons pris le prix d'or scientifique voilà loolu indil nañ ko Sénégal tey jii yematuñu Dakar parce bon président de la république bi mu ñu déggee ma lancé la grande marche du littoral halte halte bi H bi nekk halte euh, A bi aux accaparateurs des terres et des espaces du littoral des terres et des espaces président dégg nañu man ka lancé woon mosquée de la divinité à Ouakam euh, en 2020 juin 2020 président ne entreprise yi def ci corniche ouest bi nañ ko bàyyi parce que littoral boobu lañ ci am ñu def plan d'aménagement plan d'aménagement yooyu commencé na porte du millionnaire war a ñëw wakam ñu ngi koy suivre mais ñun nekkatuñu sax Dakar ñun génn nañ di dem di wax ci affaire port de Ndayane yooyu daal alors association bi foofu la tollu donc xam nañ ko au niveau national et au niveau international parce que nous travaillons en réseau et nous faisons beaucoup de production scientifique voilà donc association boobu foofu la toll ñu ngi si ba léegi. foofu ba la toll yéen a ba léegi ci xeex bi. Euh, déjà ma laaj la ci problème foncier boo xam ne mi ngi nekk ci xolu actualité bi. Euh, mhm. di foofule ca Ngor xëccoo bi nga xam ni xëccoo benn terrain ci diggante. Euh, askan wi ak gendarmerie nationale déjà yow ban analise nga am ci ci mbir moom mu am Ngor. waaw loolu vraiment tiis la quoi parce que gendarmerie moo war aar kaaraange askan bi. ak lam ay alalam waa gendarmerie boobu moo ñëw dal ci population Ngor xam nga loolu mooy ab jaxasoo cacophonie bon gendarmerie amoon na Ngor am na lu ñu wax président de la république mais du dëgg parce que ñun dañuy am information fu ne président dañ ko wax ne que waa Ngor yi dañ bañ brigade de gendarmerie mu ne dem leen tabax mais président ñu ngi koy ñaan mu dellu ginnaaw ci loolu gendarmerie Ngor euh, waa mairie Ngor jox nañ leen feneen yaa ngi place yu bëri lañ leen proposé lii tax may wax loolu béréb bi ñu bëgg a def gendarmerie. gis nga aw askan doo laal ay ngëm-ngëmam maanaam cosaanam ak aadam béréb boobu. Euh, modernité moo ñëw ñu naan arrêt brioche dorée mais foofu arrêt maam Tamsir la ñun lébu yi dafa am lu ñu xam ci béréb boobu. Hmm. moo tax tey jii dañ fa bëgg a def un temple du savoir alors dañ fa bëgg a def école euh, boo xam ne CM wala lycée mais Ngor mooy dëkk mooy commune d'arrondissement bi nga xamante ne budget bi gën a rëy ci commune d'arrondissement yi nekk fii Dakar moom moo ko am Sénégal sax xam nga à part la mairie de le plateau mais mais Ngor mais amul CM amul lycée alors euh, et Ngor démographie bi maanaam euh, nit ñi di dund foofu euh, benn Ngor waa amul un mètre carré dans le milieu traditionnel mais mais Ngor amatul fu mu yokk parce que géej gi daf ko tànce tànce Yoff tànce Wakam ñun ñii di liggéey ci association collective de Tànk des trois villages de Tànk Tànk mooy Wakam Ngor Yoff hmm. non traditionnel bi lool la mais ñun xam nañ lii xew donc ñu ngi ñaan président recevoir woon nañu alors euh, ci juillet deux mille vingt deux nañu jël leen dimbali leen ma mu aw moon interlocuteur ngeen attribuer les parcelles de Dagoxol par le temps ma jox leen trois hectares ci aéroport bi benn hectare ci camp gendarmerie bi nekk Wakam mais da démb lañ ma fekk sama kër di ma informé mais parcelles yooyu mu joxoon ñu naan ay lion yeex yooyu. mais mm-hmm. ñu ngi koy jaay euh, am na ñu koy jaay. Mm-hmm. voilà quatre vingt dix millions la parcelle xam nga loolu. loolu ñoo ñu soxlaa ñu woon ay dëkkuwaay te nit ñi dëkk ci Wakam nga jot dañ soxla ay dëkkuwaay donc loolu mooy problème bi le président de la République n'a pas les bonnes informations mais euh, alors comme amu ko. bon mais il faut mu ut ko il faut mu oo les bons ñu ñëw toog ak moom wax li xew ci suñu dëkk yi donc loolu la daal alors gendarmerie boobu daal. Mhm. comme ñoom dañuy war a aar euh, euh, euh, askanu Ngor. mais ne meeru Ngor jox na leen feneen ak feneen terrain Abdoulaye Wade bi nekk fële ci virage. Mhm. mën nañ fa dem ak yeneen i béréb. voilà yeneen i béréb donc moo gën ñu ñëw foofu def forcing bu ëllëgee les populations de Ngor di romb brigade bi di am haine contre cette brigade là parce que fiñ ko teg baaxul pour waa Ngor. waaw booy ñawal nit ki mbuba nag bon da nga koy natt ci moom. da ngay xool ndax mbuba bi moom bëgg na ko wala bëggu ko parce que boo ko ñawalee te bëggu ko bu ko sol loolu rek mooy mooy mooy wax bi te mooy dëgg. waaw ñuy wax ni tamit euh, terrain bi mairie moomu ko mais état moo ko moom loolu lan nga ñu si mën a wax. waa état xam nga euh, tey jii boo ñëwee ñu lay servir ay état di la wax pouvoir régalien mais lan mooy état mais état bi du ñuy toppale si bureau yi di liggéey pour askan bi. askan bi ci boppam ci état bi lañ bokk donc euh, il faut pas nous dissocier le, le le peuple la population de l'état le peuple et la population fait partie intégrante de l'état donc euh, titre privé yooyu ñuy wax naan état d'abord le remembrement des Almadies ñun def nañ l'état des lieux loolu euh, donc euh, l'administration dafa effacer titre foncier jàmbur ñëw teg fa ay titre privé de l'État te les lois d'expropriation mais mais mais mais euh, jaarul yoon dañuy exproprier te duñu indemniser ñi ñi bon aujourd'hui nag un état des lieux est fait ñun xam nañ lu état moom ak looy et puis état amul suuf sax moomu fi dara parce que état bi 1960 la mais fii c'était des champs de culture yoo xamante ne suñuy maam ñoo ko bay ñoo ko gor alors titré seen i titre foncier depuis la la la la la la la la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale ñun tey jii ñu naan état bi moom moom fii moom moom et état bi kan mooy état état ñëpp la mais population traditionnelle yi les populations autochtones et je leur renvoie xam nga à la déclaration euh, de l'ONU sur le droit des populations autochtones mais toujours ma wax ko xam nga euh, au niveau des conventions internes les autochtones ils ont des droits et ces droits là il faut que l'État les respecte et l'État apparemment ne respecte pas ces droits soo gisee aéroport par exemple état bi jox na ñëpp te joxul waa tànk président promesse la ñu def jotaguñu ci suuf si waaw xam nga loolu dafa neexul donc état bi bu amee même la loi de 64 46 de juillet 64 bu ñëwee xaw a réorganiser alors la la la la le foncier mais quand boo ñëwee si dëkku jàmbur mais da ngay fëgg si bunte bi nga waxtaan ak nit ñi pourquoi ils ne priorisent pas le dialogue de les concertations alors état bi mooy ñëw allumer le fo ba pare après ñëw taxawaat ne que le sapeur pompier c'est ça bu demee noonu mais il y a une cacophonie dans la gouvernance euh, voilà loolu loolu mooy moo moo moo fi am maintenant ñun nous lançons un message d'apaisement xam nga parce que ça ne à rien ay gendarme di gaañu fii ba pare ñu ñu ay nit aussi ñu leen di gaañ et encore il y a trois morts hein parce que dañ tëj nit ñi seen i kër dunduñu fi un mètre carré un habitant dugal ay lacrymogène fumogène yoo xamante c'est extrêmement toxique ay kër takk mënuñu évacuer maladie ñi asthmatique ils sont tombés e ils sont morts et c'est ça la vérité aussi voilà te loolu kenn du ko wax mais je vous le je vous informe moi j'étais je, je suis parti le lendemain là-bas pour euh, voilà quoi faire un tour et rendre foofu laa fekk euh, le grand serigne euh, Pape Diagne que nous remercions et toute l'autorité traditionnelle ah, coutumière de Ngor ainsi mm. que les autorités administratives les anciens maires et le nouveau maire en ah, wolof ma ne dafa am ñoo xam ni ci affrontement yi dañ ci jot a faatu am na ñu ci faatu way il y a eu trois loolu aussi ñu ngi koy informer les autorités de la république ñu xam ko. pour ñu yëg ko voilà et ça c'est c'est vraiment dommage ah. bu jeex la te loolu day révolter population. Mhm. kon euh, si euh, gannaaw jàppante yi gis nga. jaraaf yu ma ne gannaaw jàppante yooyu fitna bi am ca Ngor euh, jaraaf Youssou Ndoye mu ngi woote calme ak tamit dialogue ak état bi yow naka gisee le fait que jaraaf yu Youssou Ndoye di woote dialogue. bon jaraaf Youssou Ndoye bon foofu aussi am na un peu de cacophonie. parce que boo demee Wakam jaraaf Youssou Ndoye moo yor li ñuy tuddee collectivité lébu de Wakam mais il y a une autre collectivité de Wakam qui est dénommée collectivité de Wakam boo xamante ne jaraaf Omar Samba Gueye moo ko jiite te kooku noonu moom la état bi reconnaître woon léegi léegi léegi jaraaf Youssou Ndoye bon a joué son leadership mu ngi dem di négocier ak état mais beneen partie communauté bi euh, conseil coutumier bi mais état bi owu leen ñoom it ñu ngi toog alors euh, xam nga loolu boo lëgee euh, conflit yooyu aussi dafay entretenir la division man maa ngi siy liggéey ah depuis un certain nombre d'années mais déggaguñu ma parce que proposé na un plan de sortie de crise à mais déggaguñu ma Senghor nag moo doon wax il faut marcher au pas d'un peuple comme comprendre guñu damay toog si yoon bi xaar leen parce que yow yaay doon le marginal le marginal mais président de la république daal xam naa ne bu ma yàlla mayee ma toog ak moom parce que voilà maa ngi jéem a fexe pour toog ak moom pour jox euh, euh, bon les bonnes informations alors il faut des assises euh, sur le foncier dans nos localités là de tant que Wakam Ngor Yoff assises yooyu bu amee xam nga état bi organiser que au toutes les parties parties yëpp toog mais dinañ am ay solution mais état bi bu bàyyee nii man depuis plus de dix ans maa ngi wax fii bombe sociale la bombe sociale la. les gens vont s'affronter ils vont se tuer parce que la ressource naturelle suñu ressource naturelle c'est le foncier. Mm. gis nga ressource naturelle fu mu jeex. dafa mel ni fu famine am benn ndab bu tuuti nekk fa ñi ñi dañuy jiroo bool bi dañuy xiif dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy def survi donc population tànk yi survie lañ ne et le maire de Ngor même a parlé de survie alors euh, ñu ngi ñaan kilifa réew mi ah un conclave alors waa tànk jël les bons interlocuteurs ceux qui sont les plus représentatifs hmm. boole ci la société civile aux association tànk bi juddu da nga xamante ne ñoom ñoo ko encadré avec le préfet de Dakar ba judduloo ko muy le collectif des trois villages de tànk da leen président recevoir bu leen recevoir président dina nekk jëlal parti bi jëlal parti bi du ñu fàtte kenn du ñu boddi kenn du ñu bàyyi kenn parce que ñun développement durable la ñuy wax te aujourd'hui bon yàlla def na déggal déggal nañ ñu su ko defee bu ñu oowee parti yëpp ñu toog ñu jël tous les problèmes fonciers teg ko sur la table mais dinañ am solution mais loolu état bi mësu ko def donc ñu ngi lancer un cri du cœur def ko comme ni ñu ci defoon les états généraux de l'éducation wala les assises nationales et cetera. voilà euh, maa ngi lay remercier bu baax a baax ci nangoo tontu bi nga nangoo tontu samay laaj. merci beaucoup euh, Ndeye Comba. voilà may fàttali ni yow yaay président bu SOS Littoral coordonnateur bu collectif de Wakam taxaw teem co-coordonnateur des trois villages de Wakam Ngor et Yoff noonu la. noonu la Ndeye merci beaucoup merci Oumar jërëjëf. merci Oumar jërëjëf.